madal xabiru jéemal xabiru nga xamee ne borom bi ci boppam bindagul dara yàlla sunu borom li mu njëkk a bind ci leer mi ngi ko bind ci leerug Seydina Muhammad la njëkk bind ci ak leer moom sunu borom ndax wax na ni moom yonent bi kuntu nuuran bayna yaddi rabbi abla xalqil ama bi arfati xasratil alaafi nee na man rasuulillaahi nekk naa ak leer bi yàlla bindagul dara lu jiitu aadama nekk leer ci diggante ci loxoy sama boroom yàlla ci ñeenti ñeenti téeméeri junni at nee na nekk naa ko ak leer man Muhammad ñu doog a sàkk nag aadama kon leerug rasulillahi màggee na leerug maamam aadama ñeent fukki junni at ak ñeent arbata xasar alaf moom la sëñ Tuubaa di wax naan min nuurihi kullu nuurin saatixan bi sana nuuru nujumi wa nuuru samsi wal xamar Serigne Touba nee na leer boo fi gis mu jolli nee na moo xam leer googu nga gis leeru leeru jant bi la wala muy leer goo xam ne leer la goo gis muy leer jolli jëm ci weer wi waaye lu koy mët di leer rek nee na mi ngi bàyyi koo ci leerug yonent bi ba ci biddiw yi wa huwa habibu lazi min ajlihi xulixat xalaaqi kal amlaaki wal basar nee nag leerug Seydina Muhammad moom soppe bi nee na moo tax yàlla suñu borom bind mboolem leeri mbindeef yi nee na it lu demee ni ba ci malaayika yi nee na ak mboolem doomi aadama yi yépp ci leerug Seydina Muhammad ci la leen bind waka waka samsi wal ardina taabihan wal bahri misla al wa sajar nee na it naka noonu moo taxit suñu boromit it bind leerug asamaan sii ak leerug suuf si ngay gis nee na moo xam ca géej ga la it ba ca garab ya ba ca ngelaw li nee na loo fi gisit rek ci leerug Seydina Muhammad ci la jollikoo moom rasulillah wa hakaza jinnu aydan mahal baimat wakal jamaat misle napp wala xajar nee na naka noonu it noonu lay demee tamit ci yi nga xam ne it mooy jinne wala xeeti bàyyime yi wala jamaadaat yi moo xam it garab yi la waaye nee na loolu yi lépp it mu ngi jóge ci leeru yonent bi gàncax gi ngay gisit ñoom ñépp ci leerug Seydina Muhammad rek ci lañu ñu suuxatu kon nag mu war a xam ne guddi gi rëy na nag boroom guddi gi it kooku ku foor la kooku mooy Muhammad ibnu yonent bu yàlla bind bi mu lay wàccee ngay ñëwit sunu boromit it dalaa digal ci Seydina Muhammad nga dem nga wóllërante ak moom jàppante ak moom it ba noppi digal la it ne la na nga yëgal saw nit xamal leen ne leen am na yonent buy ñëw ëllëg te mooy muhammad rasulillah jële nañ ci ibnu abbas mu wax ne inna allaha taala lama xalaxa nuura nabiyana muhammad sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yansuruhu ila al anwaari anbiyaay alayhim mu ne keroog bi nga xam ne yàlla mi ngi yabal seydina muhammad dafa jël leerug yonent bi yabal ko ci mboolem leer yonent yépp leerug yonent bi keroog bi ko suñu borom yëkkatee da koo yabal mu dem ci mboolem leeru yonent yi ba mu demee ñoom leeru yooyu yëpp ba mu ñëwee da leen daal di gëlëmloo fa xaaloo yaa rabbina man xasina daat ne ko ne yàlla waa gan leer moo ñëw muur muur nii ñun yonent yëpp ba gisatuñu يالا نيلن كوكو موي لير دومو عبد الله جي موي محمد رسول